maa ngi Amadou Diegane Ngom euh, di liggéey ci fondation bi GX fon mu fondation Cataract euh, depuis ñu commencé liggéey ba léegi aussi fii donc mon année, euh, je suis un volontaire boo xamante ne daanaka cette Fondation ses fondation bi ci lañ commencé. liggéey bi nag processus la nous euh, sommes en contact direct avec la population Nous nous ñu euh, dañuy inscrire si nous. li ñuy njëkk a def euh, acuité visuelle en même temps nous avons confirmé qu'il confirmer na une euh, am cataracte dans ce cas nous ñu fait un dossier Nous avons fait un dossier nous un tonus après nous dugg aussi suñu mbokku chinois après dans ce cas nous fait def consultation bi valider également ndax exactement cataracte bi war nañ ko opérer le wala nous buñ ko validé, nag jox un rendez-vous ci rendez-vous nous nag ci ñëw après ñu opérer leen buñ leen opérer ba pare euh, ñu le lendemain bu ñëwee le lendemain nous dindi opération bi defaat le même processus defaat acuité visuelle defaat en même temps tonus donc leen présenter en même au finish ak ak Chinois. chinoise yi ñoom conclure ba exactement ndax opération bi jaar na yoon wala waaw c'est comme ça que ça se passe après ñu jox leen seen ay tuufaay jox leen indication contre indication yi ñu war a kii yi ñu war a moytu euh, pour que bu nous demee rek ñu respecter ko dans ce cas aussi dañ leen di jox rendez-vous bu confirmez aussi également ñoom ay jàmbaar lañu dañuy ñëwaat xoolaat lañ lañ aussi ñu ci liñ bon information bi parce que l'affluence bi ñu au départ ñun dañu fait deux missions à trois missions à faire dina mais à l'instant où je vous parle rek amna euh, un gap de l'eau nous dès l'instant donc information cela prouve que il y a des gens qui viennent même de la sous-région. Amna ku joggé Gabon Donc information bi chaque jour nous recevons recevoir personnes 70 personnes recevoir mais ça dépend si mission est parfois bon nous, sommes limité ça. parce que aussi le travail est un peu c'est pas facile nous, sommes limité

parce que léegi jotuñu man deux personnes rek maa ñoo des man. waaw ak euh, Baye la Sow. waaye xam naa bu soob yalla liggéey bi mo wax dëgg yalla jaar lool. waaw merci am na lu ñu la fayeku fi la. de de man kay dara man kay. lépp sama xol sedd na. lépp la gratuit la. tout gratuit. ah c'est ça lolu am solo la vraiment. ñi nuyu mbokk yëpp di fàttali ni tay ñoo ngi région de Fatick précisément ville de Fatick ñu ñëw trouver fi euh, fekk ben fondation GX moy ben fondation bo xamanteni ni dañuy œuvrer ci lepp lu jëm ci.

mooy euh, tamit euh, xalaat bi nga xamante ne moo leen yóbbee ci indi leen si suñu réew fii taamu suñu réew ci réew yi nga xamante ne ñoom dañ jàpp nii war nañ indi solution boobu foofu ma koy rafetlu bu baax a baax li gën a tax man ma mën a taxaw fii di ko rafetlu mooy doon naa doomu réew moo xam réew mi Sénégal bi nga xamante ne bokk naa ci ñu fa yàgg tuuti def naa fa ñaar fukki at ak benn ba fi may wax ak yéen nii man fa laa dëkk donc su ma gisee ak jikko ji ak euh, culture bi ma xam ci ñoom su ma ñëwee fii fekk ñu fiy def lu mel nii li ma mën a def rek te di ko boole si samay kàddu rek mooy nañ ko siiwal euh, xam nga nit kuy jëf ju baax lu baax aussi boo demee ba yëgal ko ko ci aussi ba xamal ko ne yëg naa li nga may defal lu baax dina am lu mu yokk ci cawartem xëy na tey benn bu ñu indi rek ñun suñu taxawaay ak suñu doxalin ak ñoom mun na tax ñu yóbbu ko ci ñaar ba yóbbu ko ci ñett te bu boobaa ñun ñoo koy jëriñoo tey yàlla may nañu ñu ñëw fekk fi ay mag yoo xamante ne xëy na bu dul woon lu mel nii nit mun na dem ba ñàkk si bëtam donc ce euh, ñu mën def rek moy encourage di ñaan aussi euh, autorités yi réew mi ñu nous nous ñu gën leen jappalé gën motiver aussi pour que le maximum possible de Sénégalais puissent en bénéficier